suis ngi sant di di Sénégal mais damay tàmbalee di remercier le réalisateur euh, Bouna Lopi maa ngi joué rôle Babou di Papa Sada di gërëm encore maison de prod qui ci liggéey bi ak professionnalisme bi donc film bi am naa contentement trop joué pourquoi parce que l'histoire bi nga xam ne moom la ci biir film bi suñu histoire la ñun ñun Sénégal histoire bi nekk na histoire boo xam ne képp kuy xale mën naa wax ne jaar nga ci man li may nekk yëpp mag ren sax loolu dal na ma parce que xar bi ma bi ma tabaskee ren euh, bi ma koy rey bi ñu koy rey dama dama dama obligé génn kër gi parce que amoon nañu man ak moom miinante bu nga xam ne après daf ma rappelé waat film bi donc mu nekk film bu bu am solo mu nekk film boo xam ne euh, jàpp naa ne sénégalais yi dinañ ko bëgg parce que liy wane loolu mooy sénégalais wuyu suñu tey ci projection bi liggéey bi c'était pas au début c'était pas facile parce que l'autre jour, on woon mooy xam nga production en Afrique moyens yi du demee nous. donc mais ñun nous ñu rek mooy relever benn défi défi bi moo nekkoon euh, ñetti mbir parce que production bi sénégalais la 100 pour Sénégal réalisateur bi sénégalais après après euh, euh, scénariste bi Sénégal acteurs yi ay acteurs sénégalais lañu mu nekkoon mbir moo xamante parce que généralement film yu mag yi bu ñu ñëwee ay derrière nous ñuy def tay dañu wone né Sénégal am nañu capacité am nañu euh, xam-xamu réaliser comme comme tout le monde mu nek lo xamné tamit vraiment dama ciy remercier suma jabar muy Kumba parce que facilitel nañu liguey bi complicité bi yomboon na Sada xalé la mu ngi c'est son premier film ñun au moins ay ay ay comédien lañu ay acteur lañu yag nañu jouer ay film yag nañu dem ci ay plateau yag nañu jouer sur scène mais pour Sada pour la première fois mu ñeu bokk participer nek ci milieu bo xamné ne ko vraiment tamit lolu dañ koy féliciter diko remercier diko ñaanal yalla mu mag ba diko fatalé ko mu bok ci film yi mu jouer ci film yi gëna mag donc lolu moy impression bima ma am leneen li nak moy film bi liñu comme niñ ko waxé rek dañu bëgg mu wër Sénégal dañu bëgg Sénégalais yi sétane ko pourquoi moy film bi liñu ci liñu ci relaté parce que tabaski dafa nek lo xamné dafa rëy Sénégal dafa am fu ko tek parce que waxuma la sax ci diiné ak li ci yalla wax yépp ak fi mu jóge ci maam Ibrahima ba ba mu kii mais ñun Sénégal ni ñu fonke tabaski amul benn réew ci àdduna bu fonke noonu tabaski loolu moo waral bi affaire bi problème bi taxawee ma yar sama xar parce que li tax ma yar xar bi mooy daaw année bi nga xam ne moom moo moom la ñu weesu woon tabaski wu parce que su ma ay su ma doole euh, amu woon doole pour jënd xar tabaski donc loolu laa doon bañ mu dalaat ma moo tax ma jëndoon xar bi yar ko mais comme man damay liggéey nekk si atelier bi aw ma jot damay bàyyi toujours ga mais Sada moom mooy toppatoo xar bi loolu moo créé seen relation ñoom seen relation ñoom ñaar léegi nag quand je me lève pour dire que damay rey faire ne peut accepter mais finalement yàlla trouvé une solution bon jënd après ñu voilà c'est ça. <laughs> <laughs>